ñii di jeex nii si baraak yi ñu daaneel dañuy jéem a rek a rawale ay bagages yoo xam ne ni mën nañ ko jëfandikoo waat ay matelas yére matériel ba si sax ay ndabi waañ jot na ñoom récupérer yenn yi amatuñu dëkkuwaay fii ñu doon wéer seeni mbagg la ñu daaneel yëf yi nag nee nañ da na bett lool dañoo xëy rek gis waa gendarmerie nationale ànd ak direction du cadre de vie ñëw ngir amal opération de wax dëgg fa yàlla métti na trop parce que ñu dañoo xëy fekk fi police yi wër fii yëpp dindi fi gars yi quoi ay ay jigéen ay séeréer ay pëlfuuta ay mécanicien ay soudeur métallique ñëpp fi la ñuy daane seen doole gars yi yàq lépp. ndax bagage yi ñii ñëpp ay luwaas lañ ay luwaas lañ na ñu métti ñu xëy jëlee lañ fi amuñ fuñ jëm. fii lañ doon dund doon tànkalikoo cité xandal bokkoon si Ouest Foire bu dakaar mu nekkoon ni dëkkuwaay yu doy waar jot nañ fee nag toj lu tolloo ko juróom benn fukki baraak lu ëpp fukki cantine ak it benn boulangerie bu nekkoon si bile bërëb liggéey bi ñoo ngi ko tàmbali bi juróom-ñaari waxtu si suba jotee ñi dëkkee nag si booru cité xandal gi ñu toj tey ji ñoo ngi rafetlu jéego gi nga xam ne kilifa yi def nañ ko jëlee fi yile dëkkuwaay ndax ñàkkub kaaraange gu ñu tàmbali woon di dund. on vivait dans l'insécurité totale de jour comme de nuit. vingt heures ba nga tëj sa buntu kër tout ça à cause des gens yi nga xam ne dañu wàcc fii te ñu mel ni ñu warul a mel. dëkkuwaay yi dafa xaw na jaxasoo bordel bi borom fas ci fàttali nag bile opération dafay ñel programme bu yaatu yaatu bu kilifay réew mi tàmbali ngir rek jëlee ndakaaru lépp luy dëkkuwaay bu jaarul yoon.